ami site internet Buzz Actu 221 dal leen ak jàmm seen chaîne youtube bi leen di jox ay xibaar yu wér te wóor abonné ngeen ngeen di mën a jot suñu ay xibaar saa su ne ñu daal di koy doore nag ci kaddu yi nga xamante ni kii di Ayib Daffé nekk mandataire leader bu Pastef di Ousmane Sonko daal dina ko yëkkati nag ci émission midi keng biñ ko invité woon nag ki démb si Pressia Afrique moom mi nag daal di fa yëkkati ay kaddu jëmale ko ci parti au pouvoir gannaaw nag dam bi nga xamante ni kii di leader bu Pastef di Ousmane Sonko daal dina koy am na nag jëm ci radiation bi nga xamante ni daal dinañ ko koy def ci liste électorale bile ba taxoon ay avocat am daal di woon na def ab recours ca tribunal instance bu Ziguinchor juge bile di Samba Si Fay annulé bile radiation ba tax nag kii di Ayib Daffé nag li mu xamle ni mooy que ni jamono jile état bu Sénégal dafa am ab défaite éminente jëm nag ci popularité grandissante bi nga xamante ni kii di leader bu Pastef di Ousmane Sonko nekk chef d'opposition état bu Sénégal mu ngay instrumentaliser ay agent ngir nag ñu mën a salfaañe candidature leader bu Pastef di Ousmane Sonko jëm nag ci élection présidentielle atuma 2024 ñu dégmale ci naka noonu tamit mu daal di xamle ni dañoo war a respecter procédure judiciaire bi nga xam ne rek dafa nekk en cours te nag jamono ji leen ñoo ngay liggéey waaye tamit nekk en collaboration ak avocat Ousmane Sonko yi ngir nag ñu mën a récupérer ay fichier de parrainage ni mu gën a gaawe wàcc ci le ñu pare ne seen leader moomee di Ousmane Sonko mu xam le ni rek bi décision bi nga xamante ni rek jamono jile juge bi di Samba Si Fay daal dina koy jël nag kenn mënu si dara donte sax jamono jile am na ay obstacle yoo xamante ni rek agent de l'état bu Sénégal ñoo ngi koy def ngir nag xañ kii di leader bu Pastef di Ousmane Sonko bokk ci élection présidentielle atum 2024 ñu dëgmal ba tey nag ci ay kàddoom ne kenn du leen arrêté nañ tamit mu ngay daal di xam ne maintenant ñi di waa conseil constitutionnel ñoo yore nag dernier moo jëm ci candidature euh, kii di son Sonko te ñoom ñi leen dinañu daal di entamer démarche légale récupérer li nga xamante ni mooy euh, seen fiche de parrainage foofee nag ca direction générale des élections ci nu mu gën ak gaawee